waaw waaw ci bool. ci ah, yow mii Fanta na la yàlla amiin <laughs> awa kay bu fekkee li ngay wax mën nga maa defal sous-titrage en wolof wolof en français man ma comprendre ko yow. li li mu ne wér gu yaram ci box health in the box. moom noonu da nga ne ko wér gu yaram ci box. noonu la tudd <laughs> ah déedéet moom bi muy jóge fee di ñëwaat fii yëpp man anglais bi maa ngi toog ni nga xam bokkatuma woon de. Eh, <laughs> yàgg na bokk dama ko wax si olof si anglais traduire ko si olof foo ne. CNN CNN. donc aw kay li nga wax rek health in the box muy euh, li nga xamante ne mooy wér gu yaram euh, ci biir bool mooy la santé dans une boîte tout ça regroupe regroupé dañuy dem xool li nga xamante ne ñoom loolu la ñu indil wan leen ko pour ngeen gën a comprendre bu ñëwee ci plateau bi ñu décortiquer ko incha allah à tout de suite. asalaamaaleykum waa TFM ñun la waa Xelfina Box ñu ngi fi tey pour présenter leen lan la ñuy def de manière générale comme tey ci suñu repas du jour pour le petit déjeuner dañoo am laax ak euh, laax boo xam ne c'est fait à base de fonio et de maïs plus yaourt nature boo xam ne c'est sans sucre. pour déjeuner bi on a un chiro de poulet avec des crudités boo xam ne tout est tout est bio amul dëwlin amul dara tout est naturel daal. pour reer bi am nañu salade avocat maniaque. c'est fait à base de concombre c'est-à-dire des légumes daal yoo c'est naturel bio et tout mais à base de crevettes. am nañ cliente yoo xam ne elles sont végétariennes duñu lekk yàpp duñu lekk jën du lekk crevette on a proposé une tartinade aux légumes plus une crudité avec de la vinaigrette pour añ bi c'est une tagine de légumes et de brocolis parce qu'elle ne mange ni de poulet ni de poisson elle est végétarienne léegi pour le dîner c'est une salade grecque faite fait à base de feta et tout ce qui est légumes et tout ça accompagné d'une vinaigrette alors Health in a Box euh, on l'a créé depuis donc suñu ay activité 2017 la commencé alimentation dafa dafa vaste n'est-ce pas ñun Sénégal on a beaucoup de choix mais choix yi ñuy def moo moo gënul daal ñun xam nga mburu lañu xam ak li ngay taxtine ci mbuur bi donc du loolu mooy gën à chaque fois pour ñun suñu wàllu gu yaram ak ñun xale yu jigéen yi nga xamante ne dañoo bëgg nekk ci taay ak ci forme euh, ak xale yu góor yu jeunes yi nga xamante ne dañoo bëgg am doole ak kàttan n'est-ce donc idée bi fi mu toll nii mooy euh, di lekk loo xamante ne c'est équilibré euh, quand je parle d'équilibre je veux dire que il faut que mu riche de, de, de fruits et légumes et de vitamines euh, donc maanaam même yi ñu daan lekk temps yi ñu gënee nekk xale suñu maam yi ni ñu daan lekkee ñoom fonde ñoom mboq affaire yooyu noonu yëpp yooyu tamit yu baax la xam nga lépp rek ci anam yu équilibré mais amu benn aliment boo xamante ne dañ koy tere donc ñëpp ñi naan par exemple ah waruma lekk ceeb wala ah waruma maa lekk dugub wala ah war maa lekk nangam loolu amul lépp mu ngi fi parce que dañ koo waral a lekk mais lépp ak niñ koy lekkee bouillon yi duma ci sori mais je dirais que gënul <laughs> ah gënul surtout que ñun niñ koy defee fa ëpp daal ñun ñun ci ab yu lañ nekk alors Healthina Box se trouve juste derrière chez Katia euh, dans l'hôtel Mad Notre numéro, c'est le 78 608 36. Uh, health in the uh, box uh, bon appétit euh, kii euh, nu mu tuddati Fanta Samira. Euh, lii daal mi ngi may fàttali ceeb di di ba continue <laughs> après loolu dinañ ci débat donc gis ngeen fi ma nekkoon mooy euh, li nga xam ne ñu ngi koy woowee Health in a Box muy li nga xamante ni mooy service de restauration li nga xamante ni ci lépp lu bien-être ak centre de nutrition maanaam boo demee foofu awa gay moo xam nga bëgg a jël poids wala nga bëgg a maigrir da ngay dem nga waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. ñu wax la ni awa li nga mën nga lekk lii mën nga lekk lii mën nga éviter li aussi. tout mën nañ la ko conseiller comme si mën nañ la defal tam ay box cest ñoom dañuy yëngu ci livraison aussi traiteur. maanaam tey Didi bu ñëwee soxla benn plat pour wàññi def régime dafay woote tout simplement foofu dañ koy préparer li nga xamante ne mooy petit déjeuner. Uh-huh. mooy euh, gis ngeen li ñu def noonu à base de graines de chia nga xam ne graines de chia ku ne xam na ni mu baaxee si yaram déjà. Uh-huh. da lay aider rek même boo koy def si ndox aska ngay amee siiru booy sport boo dul sport mais yii nii tamit day baax tam ñu boole ci li nga xamante ne mooy sport. donc euh, ils sont là ils sont très disponibles Aïssatou que je salue de passage ça c'est la toute première fois man je peux dire ma gis ko fii Dakar et vraiment c'est saluer parce que gis naa ni ñuy gérer timing bi ak seen équipe bu dynamique beeg yëpp macha allah bien assuré en tout cas je bu ngeen bëggee li nga xamante mooy jël poids muy góor nga bëgg a jël masse musculaire wala nga bëgg a amincir tout simplement mën nga dem foofu nañ la coacher ci li nga xamante mooy lekk bi wala ngay déggante ak ñoom téléphone da a jeex wala da nga bëgg a il je pense côté nutrition ñu bëri dañu foog ne pour maigrir da régime da lekk ay salade ak yu noonu et puis pour am yaram da lekk lu gras et puis tu manges n'importe oh. comment alors que c'est pas comme ça juste euh, peut-être benn cri de cœur pour gars yi ñuy gën communiquer aussi Fanta ñuy gën communiquer wax nit yi ni kan manger n'importe quoi du moo lay am yaram parce que tu vas am yaram mais tu vas am yaram n'importe mm-hmm. quoi n'importe mondial si ñoom madame Sall ñu génnee la lépp. ma wax la Didi. pour seedeel ko gis nga réew bi fi toll nii quantité la ñuy def. wallaay defuñu qualité. parce que ngay gis ku ñëw ne man damaa xiif dem jënd lu ko neex xoolul ndax allergie am na ca. xoolul ndax war na ko lekk xoolul ndax am war na jël poids wala warul jël poids mu lekk lekk bu cri de boobu da nga wax naan ma am crier ko ba xool leen ko léegi lekk loo xamante ni c'est lekkable tubaarkàlla macha allah Fanta non vraiment li nga wax rek la ah leen mm. xool loo xamante ni c'est vraiment parce que comment comme quoi un esprit sain dans un corps moom je vous conseille vraiment ngeen di suivre seen alimentation parce que c'est hyper important. ba pare li ma bàyyi xel. Mhm. Euh, xaw ma nag ngeen ko xel. gisuma fi dara lu ñu saaf. non everything is literally euh, natural fresh. Mhm. ak lu ñu baxal. 100% bio amul huile. amul bouillon man mi fa nekkoon di xool li ñuy def parce que damay bëgg li may wax. waaw da nga doon livrer ji wala nekk ci liggéey bi rek. da nga dama doon stage pour bu ma ñëwee ma mën a xam li may wax. waaw xam nga c'est hyper intéressant donc Aïssatou ma koy remercier vraiment de passage parce que jàmbaar lañ bu baax a baax dama leen di jox seen numéro de téléphone si toutefois bëgg ngeen dem ñu conseiller leen ci ngeen suivre seen alimentation <laughs> li ngay def. wala tout simplement ngeen dem ñu defal leen seen i box mën 78 608 36 36 78 608 36 36 donc bu ko defee rek ngeen dem ngeen surveiller seen alimentation mais surtout Awa Gueye bu oh. may tëj dama koy tëjee ci li nga xamante ne mooy sport mm-hmm. bu dee deux fois par semaine na ko gars dem defi c'est important ñun jeunes yi ñoo fiy feebar léegi oh. bu ngeen seet loolu loolu donc mm. sport moom c'est assez important bàyyi leen ci xel bu baax a bi ñu indiloon it's very very important euh, ndaxte tamit euh, balaa ngay dund love wala balaa ngay rek si sa life uh, il faut uh, nga am uh, li nga xamante ni mooy wérgu yaram it is very very important moo tax na kii di MNM moom dafa daal di wëy